yëg-yëg bi daal maanaam mbégte la ak euh, loo xamante ne xol bi dafa tooy du ma mën a wax sax lépp li nga xam ne maa ngi koy ressentir ndaxte euh, yow lañu wóolu rek teg nañ la sa kanam rek dafa rëy ndax ay nit yoo xam ne dañoo toog bëgg président la république di ko liggéeyal dem ba ji gis ne que ñun ñi tamit fekk ñun ñi tam ci waar wi di liggéeyal président. ñoom ñu xam ne que kii tamit mu ngi ci tànk yooyu nga xamante ne ñoom ci lañ nekk ñu xam ne ñoo bokk waar wi nga xam ne mooy waar wi nga xamante ne nan la ñuy fësalee liggéeyu président ndax président moom li mu liggéey dafa ne ak dafa ne jaxaran mais fësal ko moo des fësal boobu nag la ñu fekk ñun ñoom ñu ne ci ñun tam ñu ne ci loolu moo tax ñoom ñu ne ne ñun dañoo bëgg booloo suñu doole booloo suñuy loxo pour que gën ko fësal pour que liggéey boobu kenn dootul nekk xamuma lu président defoon ak lan la président nekk ndax président yéene gi mu am ci Sénégal yéene gi mu am ci Thiès ñëpp xam nañ ko yooyu la ñuy tax ne moom la ñuy doxal. lan la ñu mën a xaar li ñu mën a xaar ci ñun moom mooy ànd nit ki li gën a yomb ci liggéey moom mooy saa yoo ko fëggee daj ko ñun am nañu accessibilité boobu saa yi ñu soxlaa dinañ ñu gis ñun tamit la ñu man bari na bariwul dinañ ko bokk ak ñoom pour yéene wane leen li ñu seeni liggéey bi ñu bëgg defal pour wane président la république fii nga xam ne enjeu bu mag la muy Thiès ñu jàppale leen ci tam ba nga xamante ne tamit ñoom it nga xamante ne lu am lu am importance lañu ci mbir mi ñun ñu jàppale leen ba lii nga xam ne ñoom bëgg nañ ko ñu am ñu mën ko réaliser maanaam émergence du président la république fii ci biir cees mu nekk loo xamante ne kenn dootu ko lam-laamee mu lu leer nañ ci tënk mooy ñu ngi sant sunu borom ah euh, di julli ci yonante bi salaatu alayhi salaam lu ngeen xam ne vraiment ñun dañoo euh, def benn association boo xam ne pour jàppale président bi jàppale ko mooy président bi dafa def lu bari loo xam ne nit ñi xamuñu ko ñun suñu association dafa bëgg accompagner daal di ñëw ci ci leader yi ñu ci Papa Amadou Ndiaye ak ñenn ak ñi nga xam ne dañuy jàppale président bi ñu jàppale ci dëgg ñu koy jàppale ci dëgg di ko wax dëgg aussi ak réalité bi ñi nga xam ne lu ñu am lu leen yàlla dénk ci alal lu mu néew néew lu mu bari bari ñu ngi koy séddu ak paa ak peuple bi ak ñëw doole di leen dimbal ci yëpp di leen dimbal ci seen alal di leen dimbal ci seen ci seen xam-xam parce que borom xam-xam la docteur c'est pas n'importe qui et ensuite un doc un docteur spécialiste en gynécologie vous savez que nos femmes nos sœurs ont sont particulièrement ndeysaan en tout cas éprouvées par des maladies telles que le fistules ñoo xam ne da ngay xam ne suñu sœurs yi ak suñu jabar yi dañu am problème de de natalité suñuy jur dañuy am problème dañuy am problème vraiment de santé publique te ñoom ñoom moom ci lay ci lay yëngatu te mu ngi ciy def mu ngi ciy def kemtalaay kattam parce que dafa am moom def parfois day initier ay journée médicale day initier ay journée yoo xam ne dangay ñëw ñu visiter la mu bay la garaw wala mu yónni la foo xam ne fu mu nga faju dafay initier ay journée vraiment ay moom ci boppam day maye ay journée yoo xam ne consultation sans payer un sou nous sommes au courant de tout ça te loolu ci dooleem la koy jën ci xalaatum ci ci xam-xam la koy jël te loolu mu ngi koy baaxee nit ñi xam moom lu rëy la loo xam ne bu fekkee ne chaque Sénégal ànd ko ku yàlla dénk dara may la xaalis may la am-am wala xam-xam nga seddoo ko ak néew doole yi ak sa mbokk yi Sénégal kon waroon na nekk émergent depuis longtemps ñu ngi ñaan ñun suñu approche mooy euh, ñun dañuy tarjam dañuy dañuy firi dañuy firi ci kàllaamu pulaar wala ci wolof wala ci yeneen langues yi président Macky Sall lu mu def foo dégloo par exemple ay médias yi dañ lay wax président euh, def na ni def na def ni wala tuuti ay ñaxtu nga ci déglu ay ñaxtu ay kii yooyu wala ay manifestation mais rarement on montre les bonnes actions c'est-à-dire loolu c'est une tare de notre société les bonnes actions lu ñu ñëw di wax ni ah président bi def na lu baax musuma ko dégg mhm. dañuy wax ne rek président bi ah ñun suñu tali bi baaxul suñu kii bi kii alors que loolu mhm. c'est le bien de tout le monde nit nañu xam ne voilà ah waaw ñun loolu lañu war fas yéene mhm. def ay caravane di di di képp ay nit ñi nga xam ne ni ñu ngi jëmbale di jàppale askan wi ñu ci mel docteur Ba Amadou Amadou Ndiaye ñi nga xam ne seen action ñi bari xamuñu ko pourquoi ñun duñ ko porter au public ñu porter ko ci ci citoyen yi ci ak ñeneen ñi agir comme moom ak vraiment di ko jàppale su amoon ñaar wala ñett ñen ñi day na moom rek kon maanaa dana nekk dana nekk dana mel ni xam nga dugub booy boj bojj nga ba pare kon dootoo ko bojjaat da nga koy action ndax yaakaar nga ni mën naa jëlee ki ñu fiy wax fii ci biir Thiès muy Idrissa dina mel ne dina ko jëlee xam nga li tax Idrissa Seck trois appui jël na ko trois appui jël na ko bu yàgg ci local yi passé léegi nag lu des quatrième appui bi quatrième appui bi ñi mel ni ak ñun ak ñëpp ñëw ci moom di ko jàppale ñooñu ñoo ko yóbbu quatre appui ci incha allah 2017 nañ ko yóbbu appui 2019 moom du bokk sax élection parce que sera def il sera dépassé par les événements kooku Omar Deme ñu gën maa xam ci Serigne dem dëkk Thiès jàngee fuuta alquran bëgg dëkk bi lool nag dajale mooy di feeñal liggéey président la république bu amul ñu ko ko waxal it Thiès am na ñu taxaw pour feeñal ko lu ci jiitu ñoo ngi nii taxaw ndax man dafa am lu ma gëm li ma gëm mooy li ma gëm mooy defar lu baax ak wax dëgg cees dafa feebar te war nañ koo faj Thiès dafa feebar feebar bu metti te dañ koo war a faj te ñuy waxante dëgg yàlla dëgg rek la bëgg yàlla dëgg dong la bëgg bëggul fen li ma gëm laa gëm ngeen baal ma li may wax it na ngeen ko génne ngeen bind ko ci presse bi man maa ko wax dëkk bi nit gën na ma fee xëy na ëpp xaalis mais kenn gënu ma xam Thiès ku fi ku baax xam naa la kuy bon xam naa la ku mën a defar Thiès ba président génn ci situation yu mu nekk Thiès it man xam naa ko te kenn du ko weddi ndax ñëpp laa seqal jàmm mais dafa am lu ma gëm man. dama gëm kenn mënu ma cee jëlee. léegi kon moo lan moo waral kii ndaje bi président ngi liggéey sonn na am na ñoo xam ne feeñu luñ ko ku mel ni docteur Ndiaye mii tey lu président am ci alalam lay jël di ko xëpp ci nit ñi te président joxu ko ko man yàlla moo tax may wax. mu ànd ak ak rakam Ousseynou Diouf barke Salatu Fatiha salaire am lay jël di ko séddale askan wi Mati Ndiaye ngi ne këram dara manqué wul dara manqué wul këram lu ñëw mu joxe ko. bëgguñu ku bees ba ndaw si soog a ñëw ndey Tické mi ñoo ngi koy dalal na ñëw liggéey ak Mariam si Sylla Thiès xam naa li fi ne dara ump ma fi dara ump ma dara ump ma fi. Euh, euh, lu ma leen di jox mooy na gëm ñi ma fiy lim docteur njaay kenn mënul dem bàyyi ko Ousseynou Diouf ak Mati Ndiaye ak Mariam si laa man du ma fenn ak ndey Tické mi soog a ñëw. beneen mbir mi aussi nit bu defee lu baax dañ koy gërëm ñun ay taalibe lañu Siré Dia amul jumaa ju fi nekk goo xam ne joxu xaalis jàppale wu la ci wàllu ci wàllu ci wàllu lu mu am lu ko yàlla may loolu am na xam nga lu ma la man duma suulal kenn mais ñii dama leen a gëm dañuy liggéey liggéey bu rafet ci dëkk bi Ousseynou boo demee fu mu togg day nelaw mati këram mënatul togg lu doy dégg nga ku ñu gis ngay liggéey waaw man dama leen di wax Mamadou Dieng mi ngeen xam ne bi mu fi génnee yàggul bi ñu toogee sax di def benn jour benn bokk yaakaar docteur moo xool fàttali ko neen nañ ko defal ñaan ñu toog defal ko ñaan te xam nga nangu nañ ne Idrissa sekk bu mu nekkee ci noor bi p Mamadou Dieng moo ñëw nekku deux mais lu ma metti mbir moomu mu am foofu dina duñ ci docteur moo ci jàpp maa Ousseynou Diouf maa Mati su dul loolu day naax saa gés su boobaa Idriss day amaa amaat doole ci nit ñi rek te loolu lépp calculé wuñ ko nga may ma ma waa Thiès mën a ci Macky Sall mën naa la tontu Thiès donc Sénégal li mu fi war def nga mën a wax. Sénégal da nga naan li fi Macky non li fi Macky Sall def laa koy tontu xam nga dafa ne Thiès man duma ko tontu Thiès Sénégal fépp laay wax Macky Sall mooy président boo xam ne bu mu ñëwee ci Sénégal toog fi ba tey est-ce que mos ngeen gis dund bu yokku bu fi toogee ba tey gis ngeen lu yokku fii. su dee am na lu yokk rek wax leen ah yëguma ko yëguma ko yëguma ko kon yaa def lu ko yokk dégg nga amul lu fi yokk dund bi wàññi na ko essence bi wàññi na ko bëgg na jàmm ku ko xasee du la tontu xam nga lu ma la c'est que nag nit ñi ñoo war a taxaw défendre ko dëkk nag soo ko bëggee teg soo bëggee teg ab réew ci yoon da ngay sonn loolu moom yàllaa ko def ku bëgg dëgg ak ku bëggul dëgg bokkul xam nga lu ma la Sénégal ci boppam maanaam émergence boobu ay jëf la yoo xam ne Sénégal da koo soxla yéen ci lan ngeen nar a sukkandiku ba jàpp émergence bi fii ci ah, ñoo ngi liggéey nit ñaa ngi yërëm nit ñi nit ñaa ngi leen di dimbale yoo xam nga émergence bi yoo xam nga ne rëccuwoo ko yow mii di wax ak man li nga ma tontu rëccuwoo ko sonnoo nit ñaa ngi la daal réew mi daal tegu na ci yoon dara amul man loo xam ne li ma gis fii lu fi manqué xam nga lu fi manqué dëgg dëgg ak toog défendre. waxal ko dëgg ñii nag dama bëgg ñu roy ci ñoom ñii dañoo bëgg te et soo nee da ngaa bëgg jàppale président la république dama lay wax loolu déglu ma yow soo ñëwee weekend da ngay tëj sa téléphone tëj sa 4 x soo nee da koy jàppale da ngay nax sa bopp. dañ doon am problème ñu ñëw Idrissa Seck dóor leen fépp ñu dem ba jël département bi dugg ci commune bi ouest bi daanaka tey su dul eh, école euh, bi école euh, école Grand Thiès ak Malick Kayre daanaka dugg na suñu loxo ndax docteur Ndiaye ak ñoom Ousseynou Ndiaye ak ñoom Mati liggéey nañ ci lu am solo. loolu leer na ñëpp mais actuellement nii nord bi Mamadou Dieng ko jëloon ba pare mais yàlla def na yàlla def na lu gën est bi la ñu deewee est nag aussi dañuy wuti ñoo xam ne dañuy renforcer Siré Dia ndax moom dong aussi mënu ko yor dañ koy wut ndax foofu dafa xaw a métti ndax ñi fa nekk bon lu yàlla xam doy na dañuy wut ñu renforcer jàppale ko fa mu am doole ndax man am naa fa soxna am naa fa kër am naa fa lu nekk man daal maa ngi ciy dox lu rafet man Omar suñ ma déggalee man maa ngi ciy dox lu rafet du ma xas kenn ku ma mere yi na ma baal mais ku ma gisul ci digg bi xoolal am na benn jeune bu ñu wax Amadou Mbaye fépp fu bureau amoon fii li ñu doon convoqué ci kii kii ci APR bu njëkk moo doon def biro yi moo doon convoqué lépp di def lépp mais moo ngi nii tey ñëpp ko fàtte këram kenn du fa dem xoolal ndax loolu rafet na Amadou Mbaye moo ngi dëkk Cité Senghor wallaahi wal kitaab xoolal ndax loolu rafet na ah loolu rafetul de waaw rafetul de